fekk da nga am fierté ci Touba ameublement Touba Ameublement vous vient en amélioration sur leurs produits toujours made in Sénégal du jamais vu dans ce pays ñëw leen découvrir suñu nouveauté salon moderne nga xam ni dafa nekk en vogue ca adduna bi yëpp ay salon en tissu ay salon en velours de qualité salon en cuir authentique salon en cuir artificiel wala suñu salon assise ressort orthopédique ay chambre à coucher nous sommes à la rue 3 angle Blaise Diano ak stade Diop

waa toj na nag borom marché HLM. ah yow tamit góor day am. waaw waaw waaw soit kii soit de gerte soit de. nu sax alaaji alaaji hmm. kenn moom. dama la laal ci. waaw dafa baax nag. ni ah, da ngay wane preuve doxaan dafa ànd ak preuve. waxoon naa la man bu ma jógee pour doxaan doo doy. non doo doxaanoo doxaanu ah, xale. cim doxaan bu majeur. <laughs> poudre bi ma la commandé al. waaw baax na. bii moo tuddati sax. ah make waaw cam fi ma génn. aleykum salaam. alhamdulilah barikàlla. mbaa yéen a ngi exécution amul discuter moom amul benn discuter. oui ma nit yu mel ni danga leen di moytu nag ndax man fulla laay dox ak fayda. ah man ñàkkuma fayda de. Ah, baax na. Ah. kii man li li xew xam naa ko de. maa lox lu mel nii de. yow nag da nga ay waxu ruuma naata ak yàq dëgg laa wax. Ah. am na nit ñoo xam soo leen di gis ci place bu bëri rek. am na lu ñu a def. Hmm? pardon. Hmm. sa mbax wi du fay. lekk gi de ñëwagul moo may xaw a tardé. tuuti rek waaw man xiif moo sax yaa ngi fi indi. Ah, ah toogal. moo xam ne ma taxaw rek. Ah. toogal dama lay wax. atom bi day tere yii de. waaw dafa am xam ne kenn koo téye. ci la. su ma la waxee dëgg. droit bi laa jël parce que man marché ma subi kii. OM quoi droit bi. waaw xam nga mu fi dalee ñëw ba léegi da nekk sama xel. man nii. non xeetu ndab gi ma la ndab mënu ma ko expliquer. boo amoon facture chaque poisson la non non. collé collé man du ma kaay wuy ma. ma xam ma waxaat. xam ni ma ko. parce que je t'aime je t'adore xeetu ma la nopp boo mën facture chaque weer ma. nga nelaw ndax yow. ma fenn Amina nga jàppoon ca Pacaaw. non moom dama def lu ne gauche droite mënumaa gis te man en personne. ah yow kon da ngaa kii ci moom doxul nga viré ci man. loolu du ma ko jóg moom sama xol moo la sentir. ah naturellement. moo ma orienté yóbbu ma ci yow. ah waaw ku hmm? mu gaaw amatuma benn bopp. damay laaj aw ma temps lan moo tax xamoo sa bopp yow. waaw ay affaire yu sëb di ma avertir la moo tax nga nekk ñu màngo genre góor yu mel nii moytu leen de. ci lan. li muy wax da nga yaakaar xaw ma nan la lan la wax fee taxaw mais gémmiñ gi li muy perte li muy jox xam naa ko li muy commande da nga koo xam affaire doxaan la dafa yi di di commandé la bëgg fufu yi affaire ah, ah, doxaan la yox eh, doo demee noonu xaay ma wax la ko ma mm. damay man sama relation ak yow dama bëgg mu nekk relation boo mm. ma ay fóonanteeg ay wéer waaw yooyu moom ko ay raay ak yooyu noonu mais dama bëgg ay génn ay kole kaay Kole kaay dama lay wax. waaw ah, doo ma may ma tëmbale kaay ma wax la li ma lay wax nga dellu kaay. Ah, xanaa li waaw waxuma ak yow Kole kaay ma wax la nga dellu même ma ñëw même ma ñëw rek. kaay ma wax la nga dellu waaw doo ma may tuuti. vas-y ah. wuy ma man nag sax weer damay gindal sama yaay garab taas. amul problème dama lay wax rek. Ah, am ay charges yu ma war. di fay location comprendre nga waaw dama bëgg relation bu sérieux. non man amul problème ay fóonu te mu ma ko. man damay joxe man damay joxe. waaw loolu moom xam naa ko. Kole kaay. waaw waxal li ngay wax commencé wax ak moom affaire nobante muy wax ay a ngi na ba pare waaw léegi dama am ma war a jënd ak yu ma war a def ma la yow dama lay wax expliqué déchargé wu ma la yow salaire moom ñaari nit yu bokk si liggéeyukaay mun noo doxaan loolu mën ta ànd ah loolu yaa koy wax tey boobu arrangé mun nu bokk salaire di génn di nobante ta nekk yaa koy wax tey bàyyi hmm? yaa koy wax ma réfléchir. kaay fii. xaaral tuuti même ma réfléchir. bu baax génnal place bi. génn ma da ngay génn place bi yow. génn ma place bi da ngay génn place bi yow. muy samba nekk. wóoy ba tey ah. wóoy. moomi. kan. buy bay jaasi. place bi ngay génn yow. place bi ngay génn yow. bu ñuy mu wàcce la yow boo boo mu wàcce ma yégal la yow. déglu déglu bu leen jamono. eh lan la répétition la nekk pour eh, match bi eh, eh, répétition la nekk pour match bi coupe monde bi ah, leen coupe du leen kenn wax na. xam nga doxaan côté côté. Tafa Tafa fii sa morom nekk déglul solo sa mbaxana tey nga dal ay lasière lañ leen laaj laaj ñu ay jam jam xam nga lan la toogal lan moo xew. coupe du monde bi lan gars yi di répété nii nee neen lasière coupe du monde dafa ñëw bëgg a doxaan booy bi te mënul nekk. coupe du monde man samay sentiment la am noo ko colle du ma ko wax. samay sentiment moom sentiment. boo bëggee nit ki ba nopp ko bu mënoo nelaw doo ko wax. sentiment am bees la te sama sentiment dafa colle. dama nga taxaw ne toogal ne may si. caaman yooyu indiwu ma ma sant sa caam. Mhm. yow lan nga bëgg. moom ma jaaxal dara. yow da nga foog ne fii nii sa torchon la wala sa lan. vraiment. colle boo ko nobee. Mhm. que boo ko nobul loolu ñun suñ yoon nekk ci moom choix am la ñun jëluñu Collé pour ne ko nobal kii. waaw dañ ko liggéey liggéeyloo moom mooy jël xolam xool ku ko doy mu jox ko ko. bërëb bi moo dul bërëb bu doxaanante kaay. dëgg la dafa war a leer. doxaan sax yow xanaa dangaa ngaa kole waaw merci beaucoup wax jaa ngi nii nag. <laughs> wax léegi. Sénégal nag dama ah. bëgg naan eau nekk da nga am fierté ci Touba ameublement Touba Ameublement vous vient en amélioration sur leurs produits toujours made in Sénégal du jamais vu dans ce pays ñëw leen découvrir suñu nouveauté salon moderne nga xam ni dafa nekk en vogue ca adduna bi yëpp ay salon en tissu ay salon en velours de qualité salon en cuir authentique salon en cuir artificiel wala suñu salon assise ressort orthopédique ay chambre à coucher nous sommes à la rue 3 angle Blaise Diano ak Iba Mar ci 77 555 64 78 77 430 02 02 78 430 59 59 77 431 03 03 Touba Ameublement nous vendons ce que nous fabriquons nous fabriquons ce que nous vendons